ni mu toll lool boo boo koy delloo njukkal da nga koy delloo njukkal ni mu tollu euh, moo tax ñu def euh, bés bi muy leen 9 avril loolu nag euh, ñi xam fi ma jóge ak fi ma bokk du leen bett ndax man 1549 à notre sour ci fanweeri demeel ak ñett ak téeméeri teeñ ak juróom-benn fukki teeñ ci bawol teeñ bu ma si jóg mbaa demel sama maam nga ma sa àndal soo déggee ñu di ma tagge mbaam mi ci si njaay ni ci jaarik maa ngorong bay teeñ kere bi amari joor borsom bi sandi xeex ak birima Fatma cubb ci njaar ndéem boo dikkee kaddi réew ci tooli buur keroog lañ rey sama dernier maam muy mbàmm man lu jiitu 1950 aw ma menn maam muñ suul maam maam tali ba tani bawal yi tili yee leen lekk ak ak bukki kajoor yi kon su ma wootee war naa cee def sama jom def ci sama ngor te 1000 francs la ma sama ndey jox 69 ma ñëw ndakaaru kon su ma yegsee fii tey miimal naa sama ndey waatal naa sama baay ndax su ma dee delloo président Macky Sall njukkal ak première dame Euh, xew wi daf ma tiim laalu sama bopp moo tax mané ne du promoteur moi je suis homme de culture parce que kenn nit ku nekk ci àddina xoolal liggéey ak sone léegi def police 150, cinquante police la ñuy jël ma ne cent cinquante mu ne moo koy fay xam nga loolu loolu loolu su amee tey mu tombeek épogam mu def arène nationale 32 milliards ma war ko faa delloo njukkal loolu yaakaar naa ni bésu Sénégal gépp la ndax bés bi euh, noo ngi ñaan yàlla sunu borom nu dugg ci ak jàmm génn ci ak jàmm di ñaan mu sotti ak jàmm en tout cas bëgg nañu bu soobee yàlla mu nekk bés boo xam ni bés bu rafet lay doon may woo nag Sénégal gépp boo gisee ma ni du sama bés bésu communicateurs yi la bésu journaliste yi la képp koo xam ni journaliste nga wala ngay reporter bu doon def ba ba ak bu bàyyeegul na ñëpp jàpp ni seen bésa fu ne ñëpp ñëw ñu bokk feetoondoo ko maak ñoom dañ woon espoir